sunna dafay ay xeeti xeet am ci yu tondu am yu xóot am ci yu am ci tuut seex jiili yépp la defoon danaa la jox menn misaal tabaski gi laa lay misaal sunna yi metti duñ ko laal sunna si koor moo jiitu woon seex jiili yow ma tarwiya daana ko woor woor arafa yii yépp nag nga ba fa te damay roy man yonen yonen ba nag lum saxaloon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 ca ni mu mel ci ak magam baat yeneewee ña ko xam nee nañu lii moo mas a am sunu am si moo leen ci mënoon fépp bu mas du mas a du nangu ab baat di fa jib nee na julit bu ne ci jub sa contrat nga si ñëwoon bu no du daanoo it jógal jàkka ja dal di cay jawal ku buur bi wooni la ñëwal nga naa ma àggale du yoon nee juli daa am ñetti xeet te ñetti xeetam yépp a xuut cap digg am na am na baat kenn mënta topp ñetti yoon njëlbeen waxtu dafa am digg waxtu dafa am baba jatal waxtu itam am na ci ñoñ mooy seen defiin seex jiili nee na bopp bi moo ko gënal yow donga bi jéemal roy sa sang bi fuñ no de jullil dem sa yoon gannaaw sa waay mooy ilimaan bu nee ca bopp ba du maamum na topp ilimaan wagadu wuuteeg bopp yoon ku ne naroy cib sëriñam seex ji li moom lii di mbiram forab wanee tëll mu jam te mës la mooy nag benn yoon kër gu daa am luñ fa miin kër jiil julli lañ fa miin ak sunna xayril xaalamiin moo tax ñu def ko ilimaan nim fonke julli xam nga ko boo ko xamul ma wax la ko ubbil sa nopp diglu ko ma wax la nim ko yite woon amoon na bis muy taw di taw di taw di taw di taw ba fépp taa bani xelaw foo joggi mel ni ak sayaan nit ñaa ko naa jullil ca biir ngir fépp fépp dafa niir ca taw bi daa bari te foor